mission imaamal mahdi li ma ci waxtaan lenn rek moo ma ci gën a neex te damay bëgg àdduna yëpp doon sama témoin Sénégal même doon sama témoin parce que bare na zaman bii ñëpp ñu ngeen dégg ci internet bi ñii ni Seydi Mouhamed El Cheikh mooy imaamal mahdi ñii ni non warul mën a doon moom may joxe benn benn éclaircissement dama wax ni. ñi wax ñëpp ni man maay imaamal mahdi bis bu ñu gisul yenent yàlla Insa ibnu Maryam laa wax wàcc Damas ñëw julli sama gannaaw bu leen neexee nañ ma weddi bu ñu gisee loolu nañ ko nangu waxuma waxuma juddu roxaani yu de mm-hmm. dama ni mm-hmm. ñi wax ñëpp teg ni ñoom dañu gëm ni man maa yore mission imaamal mahdi mm-hmm. dama leen di jox rendez-vous ni leen nañu toog ba gis yenent yàlla Insa alayhi wàcc ca Damas Isa ibnu Maryam ñëw julli sama gannaaw bu boobaa ñoom ñëpp nañu gëm su loolu amul nañu weddi mission Imam al Mahdi du naxaate Isa ibnu Maryam day wàcc day wàcc Damas la wax ñëw ba ci ginnaaw Imam al Mahdi ni ko hadis bi waxi julli ci gannaawam waxtu julli suba waaw jox naa ñëpp rendez-vous nañ xaar lool waaw ñun duñu wax mukk ci basé ci roxaani yu bii wala jàll na wala lee dama ni imaamal mahdi ak instant dañuy ànd isa ibnu mariam fii ci àdduna ñoom ñaar di doxal mission bi ba imaamal mahdi jóge fi insa toogaat fi yeneen deux ans soogay dem insa dina fi nekk neuf ans moom moom mu nekk fi sept ans après la descente du prophète insa ñu xaar lool man li ma gëm mooy xàqul yaqin nañu xaar loolu nañu xaar it ba ma jóge màkka 2019 nañu xaar lool. man li du ma joxe mukk lu passé wala euh, woo benn euh, euh, conseiller naan ko wutal ma benn dossier pour buy prouver mission déedéet. Mm-hmm. sama mission man maa koy prouver sama bopp. Mm-hmm. lu ma war dox maa koy dox lu ma war a wax maa koy wax lu war a xew maa koy yëgle. Mm-hmm. balaa buy xew. bu ñu weranteeti ci imaam al mahdi Insa ibnu Maryam day wàcc. julli ci gannaawam nañu xaar lool. imaam Mahdi imaam Mahdi imaam Mahdi